di sàkku seen ñaan di ñaan sama borom boole ñu defaral suñu zaahir ak suñu baatin fi dunya ñu ngi bëgg ànd ak tàbbi ci tool bu nga xam ne tool gënu waaye tool gënu ko bari meññet ci tooli lislaam muy toolu ilmul fiqhi baatu fiqhu ñëw na ci alquran ñëw na ci sunna yonentu sallallahu alayhi ci firi yu faccanti waaye bu ñu bëggee waxtaanee xam-xamu fiq dafay laaj ñu firi baat bi fiqhu ci luga mooy dégg mooy firi fahmu fahmu mooy dégg dégguk xam bokkul ak dégguk nopp dégguk nopp mooy samu fahmu nag mooy dégguk xam ni dana wax ak yow ne la dafa mel ni déggoo ma de nga ne ko dégg naa la bu baax loolu mooy xam naa bu baax li nga wax waaye yenn ci boroom xam-xam yi dañu ne bu dee firi xam wala muy firi dégg it du nekk xam xam gu simple wala du nekk xam mbir mu simple maanaam ñaara ëpp benn soxlawut baatu faqi faqiha buñ ne faqiha dafay fekk muy mbir mu xóot niki faqiha cheikhul masalata ay aqilaha wa fahimaha wa arafa al muraada minha sëriñ bi dégg na masala mi mooy xellu na ko dégg na ko xam na lañ ca nam mu xam na caxwa yàlla ñuy wax ci alquran wa in min cheyin illaa bi bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbixahum amul dara dara lu dul ne dana sabbal ànd di sant borom bi tabaraka wa wante seen intelligence yeggul ca mën koo xam ah, maanaam xayuñu wala ñoruñu ba àgg foofu bu dee ci listilaax fiqhu ñaari mbir lay firi benn ba mooy maarifatul al-ahkaami ash-shar'iyya al-muta'alliqati bi a'maali al-mukallafiina wa aqwaalihim wal-muktasabati min adillatiha at-tafsiiliyya ana luy loolu maarifatu l axkaami sharciya fiq mooy xam attey sharia yi kon atte bu dul atteg sharia bokkut atteb naxwu bokkut atteb luxa bokkut atteb xel bokkut atteb aada bokkut atte sharia yëpp mu ne déeréet al mutaalliqati bi amalil mukallafin atte sharia yi aju ci jëfi mukallaf yi wa aqwalihim ak waxi mukallaf kon atte boo xam ne ajuwut ci jëfi ajuwut ci waxi bokkut ak xam fiq du dugg ci biir xam mu fiq ana luy loolu attey pas-pas ni ki attey tawxid loolu la ñuy tuddee ilmul usul ilmu fiq ñu koy tuddee ilmul furuu atte yooyu foofu rekk la yem ci tënk mu ne déedéet wal muktasabati min adillatiha tafsiliya atte yi ñu fàggoo ci tegtal ya nga xam ne ko jung farañ fàcce lañu kon tegtal yi nga xam ne faram fàccewuñu ko bokkut tegtal yooyu ñooy lan tegtal yooyu ñooy alquran ñooy sunna ak lu aju ci alquran ak sunna moo xam ijmaaw la moo xam lijtihaad la buñ ne tegtal yu jógee ci alquran ak sunna te ñu faram fàcce ko ma ngay génnee tegtalu ilmu usulil fiqh ndax tegtal ya faram-fàcce wuñ leen dañ leen ba mbëstal kon fiqhu mooy firi xam àttey sharia yi aju ci jëfi mukallaf ak waxi mukallaf te àtte yooyu jógee ci alquran ak sunna ci anam gu ñu faram-fàcce ak lépp aju ci alquran ak sunna moo xam ijmaau la moo xam ijtihaad la alquran mooy waxi yàlla ji nga xam ne moom la wax yu jëmee ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam te neen du ko dikkal ci xanam ci xanam yi sunna mooy lépp loo xam ne jóge na ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin moo xam wax la walla jëf la walla lu ñu wax mbaa ñu ko jëf ko ci kanamam wala ci ak xamam te weddiwut ko wala melo beneen maana mi nga xam ne moom la maanaam fiq am mooy attey sharia yi ci boppam bële dañ la waxoon ne xam attey sharia yi waaye fiq dana firi sax atte yi ci boppam ni ko ibnu xaldun waxee ca muqaddimam ba page 389 mu ne alfiqhu axkaamullahi taala fi afaali almukallafina bilwujubi walxadari wanad wannadbi walkarahati walibahati mu ne mooy atte yàlla yi wa taala ci jëfi mukallafi moo xam atte bu muy waralee lu war la bu muy teree lu araam la wala bu muy recommandé lum sopp la walla bu muy e, wane jëf joo xam ne wala atte boo xam ne wana jëf wala wax joo xam wala mbir moo xam ne moom sib la wala ak daganal mu ne atte juróomi atte yooyu yàlla atte ci mukallaf bi mu ne muy fiq ana fa atte yooyu jógee mu ne wahiya mutalaqatun min alkitaabi wa sunnati wa ma nasabahu shaaricu li macrifatiha min al adillati ate yooyu ñu ngi koy taataane ci kitaab ak sunna ak lépp loo xam ne shaaricu muy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala yàlla mi mu wuutu nga xam ne mooy dëgg-dëgg shaaricu lépp lum samp ngir ñu xamee ca atte yooyu le ci ay tegtal mu ne fa ida stuxrijat hadihi al axkaamu min al adillati qiila laha fiqhun bu ñu góorgóorloo ba génne atte yile ci tektal yii di alquran ak sunna ak lamu làmb ñu tuddee ko fiq maanaam attey julli fiq la attey koor fiq la attey azaka fiq la attey aj fiq la attey njaay ak bépp jëflante bu ñuy jëflante ci suñu diggante fiq la kon ci définition bu njëkk bi fiq mooy xam àttee sharia yi ci définition ñaareel bi mooy àttee sharia yi ci boppam masaadir yi nga xam ne nag ci la fiq di jëlee ay atteem ci lañ koy <clears throat> ci la ay atte yi fiq wala ci la fiq di gonge ko mooy cosaan yile cosaan alqur'an cosaan sunna cosaan ijma ak cosaanu qiyaas am na yu ca topp waaye ñeent yi ñooy cosaan raisiya alqur'an ak sunna wax nañ leen ko mooy waxi yàlla jëm waxi ci yonon jëm ci sunna mooy lépp loo xam ne lu yonentu wax la mba mu jëf ko mbaa ñu wax ko walla ñu jëf ko ci xamam te weddiwut ko mbaa muy sifa ijmaaw mooy loo xam ne boroom xam-xam yi la ko dalee ca jamonoy saxaaba yi ba si àllab tey bi lépp loo xam ne boroom xam-xam yi dajee nañ ci ci benn ci jamono yi dañ koy tuddee ijmaaw mooy consensus misaal ci ijmaaw ci jamonoy saxaaba yi mooy daje giñ daje ci wara a samp xalifa ñeel julliti misaal ci ijmaaw ci jamonoy saxaaba yi mooy daje giñ daje ci xeex képp koo xam ne bañ ga joxe azaka ijmaaw nag saa yu taxawee jamono ja nga xamee ne ca la dañ ko war a jëfee ñu ca toppit dañ ko war a jëfee ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne laa tajtamiu ummati ala dalala sama xeet duñ daje ci ak réer qiyaas muy masad masdar rabi bi mooy an tulxiqa xukma amrin lam yarid fiihi nassun bi amrin saabiqin lahu jaa fihi nassun sharciyun wa yakunu hada li ittifaqin bayna alxukmayni fi cillatin mushtarakatin baynahuma mbir ngi nii atteb sharia wàccut ci nga yéegal ko ci mbir mu atteb sharia wàcc boole leen ab atte lu tax illa ba tax ñu ate mbir mooma dafa nekk ci mbir mi bu ko defee illa bañ bokk tax nga boole leen atte ana luy misaal ci loolu li ñuy tuddee almuxaddaraat dañ koy yéegal ci atteeb sàngara mooy araam lu tax aljaamiu al iskaaru li nekk ci sàngara bañ araamal ko muy màndal dafa nekk ci dorog ursu kuy ceeb ak xamxu dañ lee na boole atte lu tax mooy matumiyatu ak iddixaaru ak iqtiyaatu bokk giñ bokk ñetti yile moo tax lu daw ci xamxu ci riba ñu dawal ko ci ursu ci riba lekk ak naan ci weeru koor dañ koy yégal ci sëyëg sa soxna ci weeru koor moo di ne dañuy waral kafaara ci ngiru imaam Malik ak ngiru Abu Hanifa te lu tax mooy sëyëg sa soxna ci weeru koor xotti gi nga xotti war maay weeru koor moo tax ñu kafaara loola ci ki tey lekk tey naa nit loolu la def dafa xotti war may weeru koor jaay ci kaw ab njaayum jullit mooy fekk jullit buy waxaale bëgg a jënd dara ba bëgg a jubóog moom nga ñëw dugg ca yàq ko jënd yëf xam nga dafa araam naka noonu tamit jullit bi waxaale appartement ba bëgg jubook jubóog ka ko koy luye nga ñëw dugg ca dafa araam baatu luye bi texte wàccut ca waaye njaay mi nga xam ne texte wàcc na ca la tax texte wàcc ca dafa ne ci ki nga xam ne ñëw na yàqal mbokkam la mu a luye ana luy loolu mooy aljaamiu al ictidaau ala xaqi alxeyri wa wujudu nizaa jalgati gi nga jalgati àqu jàmbur ak indi ga muy indi xëccoo ak noonoo moo taxoon ñu araamal ko ci njaay gis nañ ko ci luyaas ñu araamal ko ca naka noonu tamit njaay waxtu wi ñuy noddoo juma dañ ko araamal niñ ko araamalee it borom xam-xam yi yégal ci rax na muy tayle lu tax lañ bokk mooy ixtimaalu tafwiti salaatul jumaati na la njaay mën a tardeele ba doo dem juma na la rax mën a tardeele ba dem juma naka noonu tamit sharia daganal na ku dee ñu saraxal ko boroom xam-xam yi yéegal ci it ne kon ku dee it mën nañ koo ajal lu tax sarax jëf ju baax la ajit jëf ju baax la sharia wax ne nañ joxe azaka bil quuti euh, joxe azaka ci loo xam ne ni euh, lu ñuy dundee la ñu ne bu fekkee ne mën nañ ko joxe war nañoo mën a joxe valeur kon lu tax la tax ñuy joxe lu ñuy dundee mooy faj aajooy faqir bi valeur bi mën na ko moo tax alxanafiya wa gayruhu min al ulama eh, gis loon lañ gis ñu doyloo loolu incha allahu bés bu nekk danay ñëw ak yéen ci ay bind yoo xam ne yu jëriñ la ci fiqhu bu ñu yàlla maye wér may ñu tawfiq te yàlla nañu ko yàlla boole may defaral ñu suñu zaahir ak suñu baatin hada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dégg sunu kàddu liy xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag suñ xel yëpp def ci mun Muntaqa Sakho borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la imam Muntaqa Sakho mooy éviter mbokki jullit yëpp ca Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Muntaqa Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla i Imam Mountakha saako bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg nañ ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee la ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci am te bëgg ko cee def te sori jëlal numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam danga mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat yi ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island